ñu ngi ni nag tey euh, waa Sénégal kawteef ñëw dalal ki nga xamante ne wala fekk si sax ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté si suñu réewum Sénégal ah l' artiste wala wala wala ñu ne. <laughs> madame Sène <laughs> ah, nga ne waat la madame Sène. aywa man maa bëgg xale bu jóge nag day sëy sëy bi de. waaw maa ngi jéem rek maa ngi. première màggal. waaw première màggal ak sama borom kër. en tant que madame Sène. voilà. alors dundee Marie. ça va c'est c'est plaisir. parce que tout le temps su ma doon ñëw màggal rek c'était juste pour ñëw dalal nit ñi et tout. màggal célibataire waxal rek. waaw màggal célibataire <laughs> alors tey nag sant yàlla bu ñu génnee ci clan célibataire dugg tamit nekk euh, marié mhm. voilà ma ñëw fii nii ci sama kër borom kër pour fêter fi màggal bi ak ñoom. macha allah dañ naan Marichou tey wala soit ñu dem en tant que Khadija. Hmm. ñaar yëpp je préfère ah, wala ñu dem ci Mariétou bi rek wala madame Sène bi yàqul dara waaw. dafa mel ni bi gën a ah waaw moom laa gën a bëgg jusqu'à l'infini. <laughs> déjà ñu ñëw fii fekk la fii euh, c'est vrai que nag euh, dressé nga ce matin dalal say gan euh, say am di jàmm comme ni ko jigéen ñëpp di defee rawatina nag une femme mariée nga def ndekki bu baax Marichou màggal gi ñu ngi si veille bi suba la incha allah comme ni ko ñu ngi xamee waaye boo xoolee avant ak après day Mhm. dëgg la dafay metti comme li ma la wax léegi rek parce que avant dañu doon ñëw nit ñi ñoo ñu doon dalal du ñu jox defaral lépp du ñu dressel et tout du ñu toggal li ñu defal lépp mais instant bi comme que danga dama dem ba nekk ba am borom kër. Mhm. tey man maa war a dugg ci waañ bi. maa war a berne daal voilà maay berne may teral samay ay gan. Mhm. c'est ça voilà naturellement bi parce que gis nañ ne màggal de Touba ju bëri dañuy profité surtout ñuy jóge dakaar gonab Dakar dañuy ñëw sil pose ongle xef def lu nekk seen bopp yi seen kanam yi ba buñ ñëwee liggéey sax duñ ko mën wala soit dañuy am problème sax pour mën a jaamu yàlla bu baax a baax tey yow nga ñëw woote naturel façon ku nekk nag ak choix man duma blâmer kenn parce que sama genre gi man ba may door ñëw euh, di di ñëw Touba euh, xaw ma woon doon naa dégg règlement yi mais xaw ma woon ni que carrément ni ko suñu ñëwee dinañ ko jëfee mais ba ma ñëwee gis man dama doon def sama ay pause doon def sama ay cils mais bi yoon dama ñëw def choix à ce que ni que du ma def euh, du ma def pause du ma def cils et tout mais ku nekk tamit ak choix am du ma ci kenn ku nekk tamit def la ko neex rek tamit ak lu mu santé hygiène de vie bi aussi si si la bokk waaw loolu moom ci la bokk moom. surtout ñi nga xamante ne comme tey jii daanaka mën nañ ne di di nga dugg ci waañ bi mën a teral say gan euh, parfois gisin bi tamit du du rafet. dëgg la mais bon bu ñu defee ay pause rek ñu xam ne que ñoom mënuñu ñàkk ba a def pause juste bu leen neexee mën nañ takk ay gants pour hygiène bi voilà. xam nga lu tax moo la koy laaj xam nga da nga nekk koo xamante ne parfois da ngay xaw di làkkatu nag bàyyi làkkatu <laughs> da xaw di làkkatu. ah xam nañu sama vrai maa ngi nii. Marietou Diop ñëpp xam nañ ko Marichou. Marichou diététicienne. Marichou. diététicienne la. Hmm, c'est-à-dire. Hmm. est-ce que da ngay da ngay dox si li nga lépp li nga xamante ne moom mooy wàllum euh, esthétique wala ñoo xamante ne ñuy joxe ay conseils si wàllum hygiène euh, alimentaire. Hmm, non non non ça c'est pas moi non non. waaw baax na série li nga xamante mooy Mensonge entre copines moo doon série boo xamante ne euh, def na ampleur ñëw na def buum macha allah euh, euh, naka nga dundee succès bi si première épisode yi nga xamante ne jot ngeen ko dawal. bon maa ngi nuyu Djibril Yes Dakar de passage ah, di ko remercier bu baax a baax pour confiance bi mu ma jox. ba jël ma tey ma nekk euh, actrice principale ci série boobu Mensonges entre copines di ci jouer rôle Khadija mu nekk série boo xamante ne c'est vraiment intéressant parce que dafay refléter suñu société aussi tamit ñuy joxe ay thèmes yoo xamante ne macha allah ku ci nekk dina ci gis boppam et tout voilà mu nekk série boo xamante ne c'est vraiment à à à suivre parce que nekk na loo xamante ne tey dafay yeete te lii yeete yaakaar naa ne tey war nañ cee mën a gëstu di ci seetaan ngir mën cee jàngat lu bari bari bari parce que de nos jours am yenn yoo xamante ne ñi ngi koy jëflante wala di am fit di ko def te yaakaar naa ne tey boo amee fitu def yenn yi rek dafa fekk ni que yow xalaatoo suba kon sooy xalaat suba rek dina am yenn yoo xamante ne tey di nga ko jomm di ko def alors am na lu ba am histoire yoo xamante ne macha allah te juste début bi la rek mais après nag lay dàkk di leen suivre rek. gis benn histoire boo xamante ne yaa ngi koy dund en tant que Khadija je dirais euh, euh, si série bi muy euh, yow sa doom. booy booy joué yenn scène boobu noonu ban ban sentiment ngay am en tant que jigéen boo xamante ne dañoo jël doomam foqati ko ba pare bëgg koo tàggaleeg doomam. waaw loolu daf may jox comme pot de marichou rek parce que ëmb jur sama ay doom et ba wasin leen ba pare ñu fexe jékki-jékki rek ñu ñu lab et parce que loolu noonu dafa métti en fait séquence boobu rek je pense que moom mooy ñëwaat bii différence bi mooy ñële dañoo euh, dañoo dañoo faatu bii nii mooy dañ ko sama borom sama ex sama ex jëkkër et di leen di di nappe sama doom et tout bëgg di defanteeg man genre yooyu noonu c'est vraiment dur te lépp du moom moo tax euh, jabaram bi mu bàyyi jabaram man mii la bàyyi jabaram ji mu takk et moom moo koy nekk di ko influencer ba muy def loo xamante ne di def na ko dul noonu. dañ koy dund si suñu réewum Sénégal. voilà voilà c'est ça bari na fi trop bari fi trop alors ñu war cee gën a bàyyi xel et tout parce que ñu xam ne jigéen. Euh, di góor góor tey doole ji mu am ci jigéen jigéen amul loolu ci góor alors ñu bàyyi loolu noonu xel bu baax a baax xam ni que xëccoo bi dara waru ko daal ñu rafetal ko rek su ko defee ku ci nekk mën a garder xale bi ba heure bu ko neex rek ñu ñëw ko. ban conseil ngay jox ku ku ku jigéen kii bu fekkente ne am na jigéen yuy dund lu ni mel parce que comme ni nga ko waxee ëmb jur doom wasin euh, métti na loolu bu ñuy xëyee tey benn jour tàggale ak moom. dëgg la dafa metti loolu conseil bi ma leen jox mooy ni que àdduna lépp loo mën ci gis rek lu nekk rek communication la communication dafa dafa dafa dafa am solo ci diggante ñaari nit ñuy ànd ci diggante ñaari ñuy dem ba yéen ñaar boo leen demee ba tàkkalikoo sax euh, dina flûte en dina flûte ci yéen ñaar ku ci nekk dina mën a communiqué ak moroomam ba yenn détails yi nii kenn du leen mën a jaxase parce que ku ci nekk defe naa ku dund tey jii ba sëy ak moom ba am ak moom njaboot et tout defe naa ne dara waru leen a mën a tàkkali alors ku ci nekk xam na moroomu euh, ku ci nekk xam na jikko moroomam voilà alors yaakaar naa ne communication rek manque de communication moo manqué foofu noonu et communication bi buy jàll rek kon am na yenn yoo xamante ne kenn mënu leen war a mën a jaxase c'est ça euh, ñu ngi lay euh, remercier bu baax waaye rek euh, du ñu jeexal te laaj ñu la nan ngay jëf ak ñi nga xamante ne xam nañ ne sa digg xam nañ sa diggante ak Billy vraiment bëgg na la gis na déjà mu am na ay kàddu yi nga xamante ne maanaam wax na ko or antenne ñun xam nañu vraiment donc ñi nga xamante ne ñu ngi topp Billy topp ginnaaw Billy te alors que tey Marichou mu ngi toog nekk jéega Billy góor la sama jëkkër góor la alors tey mu nekk góor boo xamante ne macha allah xale yu jigéen itam dañ ko nopp. Ah, tu confirmes. waaw je confirme eh, madame Sène waaye ragal loolu de. ragaluma loolu alors sant yàlla ba ma yàlla boolee ak moom parce que nekk na góor boo xamante ne góor bu ma yërëm la góor bu ma bëgg góor bu ma respecté góor boo xamante ne bëggul ma mer bëggul tamit ma am dara loo xamante ne lu ma metti la fu ma sëggee sax moom ñëw na xool ndax amul dara lu ma metti or que dama ñëw. dama daa jonge na voilà non daf ma nopp. <laughs> <laughs> daf la nopp moo tax ragaloo daal ñeneen ñi. non ragaluma ñeneen ñi parce que wujju boo ko wërsëg rek la mais du dara man ragaluma ñeneen ñi bu xefee xippi sax ma ñëw takkal ko andil ko ci kër gi. Ah. waaw Marichou fi toog. scoop ngeen am foofu. waaw. <laughs> lan ngay tàggatoo. <laughs> alors di leen remercier yéen ñëpp waa Sénégal kontaan naa bu baax a baax ci visite bi et c'était un plaisir de vous de vous recevoir et tout. kontaan naa bu baax a baax di leen wax ni que à bientôt di nuyu aussi tamit ñi may seetaan ñëpp di leen ziar voilà. <laughs> merci beaucoup ça a été un plaisir ñu dalal ko tey gis ngeen Marichou avant goule rek après incha allah demain dina ñëw si li nga xamante ne moom mooy euh, majour màggal xool Marichou ak Billy nan lay màggalee incha allah jërë ngeen jëf.